Dieynaba Baldé mi fi tuumaaloon Mamadou Diop ñu gën ko xam si Diop ISEC ba mu joxaloon ko rek ab tëdd kaso la ñu déggati si beneen mbir bu sorewul dara ak ba ko boole woon ak baayu doomam bi ba mu jógee ci coow loolu nag fësal na fi liggéeyam ak rappeur bi di Djibril mbay Fall ñu gën ko xam si Bril Fight foo moom mi lee sax moo produire woyam yi moo mujjee génne Libération dikk na ak ñun ci li waral coow li te ñuy wax ni daal moom Bril digganteem ak Dieyna wees sunu liggéey ndax coxoom la woon maanaam dañu doon génn fan yi ñu génn nag la rappeur bi porté plainte ba l'enquêteur yi xuusee si mbir mi nag la sa juddu moo di ne a moom Dieyna dafa yoroon ay photo ak vidéo yu mën a yàq deru Bril si dëkk bi si noonu nag la ko tàmbalee def lu ñu dippee chantage mu mel ne daal lépp lu ko ñeel si def ñaawteef magam bi di Ali Balde la si àndal jamono ji nag teg nañu leen loxo démb sax ña nga fanaan ca spéciale de lutte contre la cybercriminalité ñoom ak ñeneen ci seen ay complices la ñu leen di toppee di sàcc téléphone taataan ci ay données jàmbur chantage ak yàq système u jàmbur mbokk yi daañu leen toppalaat xibaar yi ci li ci gën a fës ci Dakar Buzz jaa ngeen jëf